sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene muy góor mu jigéen war nañu tuubi ci suñ borom ba te ko tuubi ruubi ngir ku ci tuubul abadan ba faatu doote xëy duñ la ram dootoo yaatu tudd li laay wali rasooli man réccu naa lépp bala ñu maa suuli moo moo tax ma jóg di way di waare dénke ngir xarnu bi yii fi xaw naa sànke سميت عاوسر نسواني وكل قافل من سباني خمنا دو تخصخ ndaw ñu bon ñawaaro waaye du tee man may waare ngir kannaaru li may bon bon li bon bon gisoon naa Seex Bamba gis na mu bëggu nag la mu bañ ngir ba sëriñ ma marja moo may way we di laaj solo yi jigéen ñi xaw ma lay wi samay xibaar siiw bañ xam ne bëgg naa baax lu baax a néew wolof dane ab ma dee kenn mënu ko tee baw ku tàbbi tool borom la baw baw kurul islaami sëriñ Tuuba nga bañ alaaji fallu mbaa jam góor nga ñëm jigéen nga maa lay xiiroo baw la baw fuuta tooroo faal gur dëgg baayu lalla faal baayu si xalli faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibrahima Faal Cheikh Ibrahima Faal Cheikh Ibra Faal baayu si xalli faal borom ba war faal maam imaam Ibra Faal Cheikh Ibra Faal sëñ Cheikh Fall Baay góor Baay Serif Asan Fall naaru Kawsara Fall Cheikh Ibra Fall maami soxna Maymuna Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall ak sëñ Bamba mi misaal leen ko ci bët lay ñuul ak lay weex lépp di bët te loo ci ñàkk-ñàkk bët ba tey ma am si Ibrahima Fall daa duy si léeri suñ borom fees duyal na aw ñoñom ba fees moo di def gu fees baawaat nga maami soxna may mun a faal moo tax ma naa basmala laam ga ca kaw tiim baaga kenn xamu ko baaga di seex bamba laam gaa di lamp faal ci maami may bura faal moo tax ma naa bu fi gis waa tilim juy tox di naan di dóor jëmmam seytaane moo boof cëb xolam bu leen ko xoolee seera faal sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey